lu waraloon nga tukki. waaw dara xam nga ñun dañoo nekk ci école yi liggéey nekk ak ay course nekk suñu suñu waajur ñu am lu ñu soxla ci ñun waaw pour ñu am ko ñu dem yóbbu ñu ñu bët ñu tukki parce que demuñu woon parce que dañoo bëgg dem dañoo demoon parce que daa am lu ñu wuti woon loo xamante nii ñoom soxla woon nañ ko ci combat bi yàlla def na am na ko ñuy sant yàlla bu baax. toll nii làmb ji xam nga ñoo ngi doon waroon wax dimanche bii la mais na xëy na tam yàlla lii dogal quoi ñu koy sante yàlla nekk tamit mu renvoyé bu ñu am mu nekk yàlla na nekk lu gën suñu. sama mos gu ma gis mu dal si kaw mbër at bi rek mu daw ñëw si kaw mbër amagul de mos nga gisee wax. la. <laughs> mos gis mu daw di fekk ci mbër de te man mbër yi fekk si yëpp gis nañ de. sama ko bàyyi paas nag nan laa def noonu dafa jaawale xanaa dafa jum. man dama ko may maay jëli maay fekk si dafa jaawale. incha allah ay combat waaw xam naa ko tamit quoi xam naa ko waaw. pour maa nekk booy bu ndaw yaa def ma dugg ci làmb xam rek ñëw def ay preuve xam suñu borom may ñu tamit ni ñu bëgg ñu ñun ñëpp ñu bëgg boo ñaam fu ma amee man su ma woo ay nit ñëpp dañuy ñëw man ñëpp mu bëgg suñu borom moo dogal lool rek ñu dugg ci làmb nekk ay xale di góorgóorlu bañ teg ñu benn niveau tamit ñu fi boole def ay preuve gars yi di gis suñu combat ñu koy santé suñu borom bu baax nag. ñaari doomu mbër ñu ngi soog a daje. non <laughs> man tam papa mbër laa en tout cas xaw ma lan la <laughs> parce que papa man mënoo xam nga. làmb la waa munu ma la kii la daan mosuma dégg mukk xam nga mu taxaw ne daan naa diw fii si bëre dóor bi. xam nga loolu man sama papa mu ne dégg Doora Fall na tubaabu joor daan na nil na Mor daan na Ambrassa daan na diw daan na diw daan na diw xam nga loolu mais moom ñoom ñooy nekk di ba mbubboo loolu quoi xam nga booy ñaa doom dégool booy ñaa doom dégool mais bus boobaa déggoo dina bëri li mu mën dina ko def mais buñ desee si biir géej man moom rek ñoo fay des. te gars ñoo ko bëgg a yóbbu foofu rek. doomu kii doomu kii mais affaire du foofu làmb la ñu ñu nekk muy suñu métier ñu ciy foo yàlla def mënoon na ma boole benn mbër yàlla moo def su carrière bi combat bi décroché ko yombul woon te promoteur bi tamit di ko gërëm Aziz di ko gërëm bu baax parce que baax la moom xam ne xam na li ma koy wax quoi lii nii maa ngi xam nañ moom borom baax la maa ngi koy bëggee bu baax di moo def maa moom suñu combat am taxaw waaw amoon na wax léegi wax amatul jëf moo am waaw ah, ñu ngi nekk di waajaay comme li mu la wax léegi nag combat bu ñu fonk la nag. na nga taxaw dëggal sa bopp ma daan la jël bu gaaw boo teelee joxe sa bopp ma daan la jël bu yomb nga nekk fa di dëgër dëgër lu bopp nag ma wari loola daan la. l'essentiel maa ngi waaj sama combat ak moom wax naa léegi nee naa la combat bu ñu amal solo la ñu ngi koy waaj ñun du ñu bàyyi bëre ñu bàyyi xeex ay xale yu ndaw lañu nekk ci yoon waaw yoon bi nekk nag dañ ko wax a respecté xam rek bëgg dem ci kaw ñu ngi waaj comme ni mu waree bëre xeex yëpp ñun ñëwee incha allah nañ wane liñ indi bu soobee yàlla. Papis waxal sa adversaire et eh, attends Papis xanaa yéen lu moom ngeen àndal muy wax ngeen di wax yéen wér ngeen muy wax ngeen di wax yéen wér ngeen Papis waaw békay avant ma wax Mamba damay nuyu ñu fi toog yëpp boobu dal na de Matar Gueye doon na ko dugg Pakala bañ na Pakala ëñ na ko ñu koy bëgg a plaqué Pakala Pakala Pakala plaqué na ko Matar Gueye mañ na Pakala ah Matar Gueye door na Pakala door na door bi dal na Matar Gueye jël na Pakala Matar Gueye jël na ba Pakala sotti na ko Pakala daan na Matar Gueye Pakala daan na Matar Gueye boo demee noonu. madame l'ambassadeur gis nañ ci. waaw dañuy remercier waale groupe Géwël gi tonton. jël na ko noonu la ko daanaat. allah ji bëggee e. ba loolu sànq na ko. Ndiaye Malick a ngi def ay jeu de jambe. Ndeysaan ñaari xale yaa ngi déplacé wu. Eh, laay lee la nger daw na gauche droite nger daw na jël ko nger daw na jël ko takk na ko Ndiaye Malick bañ a rasu na téye na ko nu mu koy def galgal ba laay day la laa e waay samba moo Ndiaye lii lu mu a ah, bisimilah jàmm a ah, moo lii lu mu nger bu zap wanenti na boppam nger wanenti na boppam nger wanenti na boppam ku nekk ne nii da ngay jëm ni tegg di jëm a nax sa morom bëre naxante la ndeysaan laay lay la la mondu la fu takk na ko takk na ko moddu na ko takk na ko moddu ko mbañ laay lay la la eh waay at naaw eh ba tey waaw la fu waay def na ko yëfi dof eh waay la fu waay